ki nga xamante ne mooy sita ndam xañ Papa Sow ñuy félicité Siteu di encouragé ki nga xamante ne mooy Papa Sow ñu toog ak tëggkat bi muy jiili bàyyi jiili ginnaaw bi làmb ji weesoo ñu fas yéene koo laaj ci tuus bi ndax ku ne xam na ne innové na indi na tuus bu sax dàq bu neex bu nga xamante ne xam naa ne gars yi dinañ ko tiktok ndax loolu dafa neex macha allah ma ànd seek sama góor sama xarit muy Fadel Niang boroom Dakar googu dama koy bàyyi moom mu nuyoo su ko defee mu jox jiili waxtaan bi dañ koy ubbee ci Fadel ndax nee naa leen gumbu du jiite yoon Fadel maa ngi leen nuyu di <laughs> maa ngi lay fay di fay ñi ni cible yëpp ci internet yëpp. du ma ci delluwaat li Pël wax rek doy na jili waaw ñu ngi lay nuyu ji la siyaar ñu bàyyi la nga nuyu ji la seetaan waaw mais auzu billaahi mina seytaani rajiim la ñuy wax rek xam di sant yàlla bu baax di di di nuyu ñi fi nekk ñëpp di si jiital suñu sëriñ sëñ Fallou Fall xam di ko sant bu baax Fall yaaram moom tey sonn suñu parce que sëñ bu lu ñu mënti xewle mu neex mu naqari mu tooy mu wow dañ koy gis te kilifa la quoi waaw ñu koy sant di di gërëmaat tamit suñu sëriñ sëriñ Sidi alxuraan Mbacke Bala Aïssa sant nañ la bu baax waaw ñun tàmm nañ bu ñu demee saat balaa sita bëre dinañ ne bu ñu yàlla dimbalee bañ dem ba Daaru Salaam jàkkaaroog maam Sidi luñ ko ñaan mu may ñu bañ nañ ko bu ñu loolu sax duñu am lu ñu neex kon loolu suñ kon kooku yàlla moo ko boole ñun muy suñu waajur may gërëm tamit sama sëriñ sëriñ Kara Sylla xam nga borom borom borom diiwaan borom Daaru Moxti waaw sëriñu Baye Ibrahima Seck sama papa di ko sant bu baax di gërëm ñëpp ñëpp ñëpp ak ñi fi teew ñëpp faral di la nuyu di nuyu pël bu rafet. jërëjëf ma lay fay mais lii li may ubbee mooy démb bis bi da koo waaj dama gis nga ñëw la trois pièces. Ah. jël kaara gi takk ci ndigli ah. man bi nga njaabee njaabaat dama ne dama ne dama ne oh suñu papa du njaaruf di kat na. ma gis nga njaab ak ak càmmoñ bi xam nga du ko innové ba innové ko càmmoñ bi ah. lu doy waar loolu. waaw kooku kooku kooku kooku la sax ñun géwél yi mais kooku sénégalais yëpp ñoo koy tiitaroo ak Europe tubaab bi sax dañ koy tiitaroo di ko tuddee seeni doom ndax dafa am lu mu liggéey si aar quoi sabar moom moo ko génnee jéggil ko frontière yi bu ñu respecté tëggkat moom la du Ndiaye Rose suñu maam jooju yàlla na ko yàlla xare àjjana mooy profité waale tamit di nuyuwaat sama beneen maam alaaji maam Mansour Mbaye xam nga di ko ñaanal bu baax mu yàgg fi parce que sëñ Fallou moom koo xam ne day ñaan président mu koy may kooku ñun mbay ma jaaga Fatim Ngoone mam boo yow ñu ngi lay ñaanal di la wax yàgg fi sa mbaax rek moo tax ñu ngay yëg suñuy soxla ñun ndax ñun suñu soxla ak suñu problème yow loolu dafa ndaw si yow ñi ngay lijjanti ñun ñoo si gën a gën gën a ndaw boo loon duñ ci bàyyi xel ndax jàpp nañ ne sax xamooñu donte say njaboot lañ say famille lañ mais loolu réy na suñu trop te ñu bëri tey respecté waan na ñu sax ñun ndax yow yaay bopp bi yow boo waxee rek doy na man dama siy santaat yàlla bu wér parce que doomu géwél laa am problème ki gën a rëy si géwél yi ñëw taxaw waxal ma maa ngi lay sant bu baax maam di la wax yàgg fi yàgg fi yàgg fi yàgg fi suma père Begaay jëri ngoone Maalove Samba bàyyi Moodu ak Matar. moom daf maa bëgg fukki bal ak ñaar ne tuy. mais jam waaw mais jamono ji nag nañuy waxtaanee jarul ay bal di tàq xam nga. père Begaay maa ngi koy bëggee moom saa bu defee éditiqueur soxla si ay tëggkatu mbër man maay ki muy njëkk a woo. buñ ko defee ba mu jeex tamit man rek man dina man faaw ñu ànd ba fi ba oto bi mu war a yéeg mu am ay yu ma dénk yëkkati xaalisam jox ma. moo tax bi mu toogee si plateau bi mu ñaanal ma am lu mu waxee ma koy sant bu baax di gërëm doomam Modou Mbaye ak ñëpp ñuy wax si làmb man ñëpp may bëggee ñëpp xam nga ñëpp ay ñëpp ma bëgg par sëñ Fallou si axlu làmb ñëpp laa seexal jàmm sant bu baax ñëpp nga seexal jàmm déma njëkkal li nga njëkk a réussir mooy tuus mu ngi ci li saabu Siteu jàppee bis mu innové indiwaat loo xam ni euh, day day bàyyi la mu indiwoon dem ñu lu bees Siteu mi ñëw parce que premier combat ba léegi saa mu tëggalee Siteu ñu ne ma bul changé bi bàyyi ko fi mais yàlla day dogal Fadel est-ce que xam nga ne biñ ne suba la open press bi lañ toog januwaar ba ay une heure du matin noonu rek ma ne ko suba da war a fecc lu neex muy tayal ma ne ko da ngay jóg man ak moom a caatu foora ak mbir mi taxawoon fii léegi maam faari ñoo fa nekk di ko jàpp ak abu ñaase koli ñoom sax jàpp nañ ne mënuñu fee répété ñoom dañoo tëdd ñu ñu jug taxaw nii di ko jàpp mais du lu ñuy sax créer parce que créer wa gën a jafe mu gën a yomb mais moo gën a jafe am na mbër yoo xam ne bi ñu xewee ba léegi li ñu ñu feet te pourtant ñi leen di tëggal mën nañ tëgg ay tëggkat la mais ñun dafa am lu yàlla def suñ diggante loo xam ne buñ ñëwee na taas mbataas sax buñ demee stade day neex loolu suñu borom moom moo koy jagleel ay doomu aadama te nañu ko mis nañ tëgg lu neex mis nañ dem stade feesal ko mis nañ lépp dañuy ñaan yàlla rek yàlla lafal ñu cat Fadel tëggaguma si stade bi man. ak ngay tëgg. ngeen cité lim fecc lépp. amul mbër guy tuus ba mu jeex te sama sama œuvre man du si dugg maa ngi ba si ba si may nuy waale suñu grand bala gay 2 maa ngi gis lu neex li mu fecc àdduna yëpp bégee ko mais dama tëggal Siteu mais maa ngi damay boobu répété depuis répété open press ba léegi maa ngi dégg naan tuusu Balla Gaye bi Balla Gaye kañ la doon bëre Gris Bordeaux xam nga loolu non du sax daaw moo giri non moo giri bi passé nii yaa ngi jëm ah. sonn la rek ay ay deux mois la si ginnaaw xaw ma waaw 2013 laa tëggal loolu Siteu moo ko am Morlo ba ñuy défilé na ñëpp demaat si YouTube bi seetaan ko yaa ngi dégg dañuy gisee suñu nawle tëgg lu neex sax bu ñu neexee ñu jël ko tëgg ko ndax moomuñ li fi ne ñun. déedéet yaa ñi moom fi lañ ko fekk. du fi jóg tëggkat yëpp xam nañ ko kenn xamul kenn xamul ko ko créé fi lañ ko fekk kon teg kon yow mënoo ne lu ma moom rek laay def ndax boo boo bu fekkee li nga moom rek ngay def non doo def loolu hmm. loolu yaa ngi koy def te dama la tuddal loolu rek mais bari na lu ñuy def loo xam ne fi lañ ko fekk xam hmm. kon bu ñu gisee ku mel ni tey sax suñu per Adama Ngom tëgg lu neex loolu am nañ droit jël mais suñuy yëf la ñuy tëgg ñun hmm. yaa ngi dégg parce que ay xale lañ te bëgg nañu wane suñu bopp ñëwoon ci baax boobu nga moom la tëggal kii baax bi ma rajaki jajaki jabraki jambax cer jere keket urajaki jajaki jabraki jambax cer jere keket uraca ca ca ca ca uraca ca ca ca ca kindaj kindaj kindaj kindaj kindaj caroraki jërëñ loolu daa fees xam nga loolu dafa fees del léegi yàlla dafa dogal loolu noonu lépp loolu noonu lépp tëgg bu si nekk rek tëggal naa ko si ta waaw ñoom ñëpp ay frère lañ ak ay sœur nga jël leen boole leen bu ci nekk daf naa ko xaw ma ndax yaa ngi may dégg xaw ma voilà beneen bi gindaj gindaj damal nga seeraan combat Tidiane Faye waaw loolu moo koy baax waaw mais te lii nii bëgg moon leeral mais du dara quoi mais dañuy leeral ne rek ñun buñ gisee géwél tëgg lu neex am nañ droit jël ko hmm. mais li ñuy tëggal Siteu yàlla day dogal ñun ñoo koy xalaat di ko ko tëgal muy neex. beneen bi nag. voilà beneen ban. jéggi gun gun beneen bi. te loolu damaa rey. ba man la. mooy bi mu naan jéggi gun. kenn kenn kenn kenn. non loolu loolu loolu sama xarit boobu sama xarit Abou Salah. ak ak ak ak ak ak euh, Alsaan ak Mama Seck ñooñu loolu ñoo ko ñoo ko tëgal Sidi Diop. boobu kii da ciy lii de boo ñëw. non non. loolu loolu si wayu Sidi Diop la nekk. Hmm. waaw te boo gisee. ba kaw la. non non. waaw ñooñu ñoo ngi fi ñooñu ñooñu c'est la famille ñi ma lay wax ni man déggoo man na pël man lu ma jël kenn du ma wax dara si ngi doog a tuus démb sax lu nit mës a dégg boo ko te si musique la buñ man Siteu du ma ko tëggal lu mbër mës sa baaxu parce que yàlla dogal na ay ndaw lañ te am nañ xel di xalaat macha allah te suñu xol déggoo nañ ndax du affaire du ay man tëggkat yi fi nekk dañuy mën a tëgg seen mbër mën a bëre yàlla dogal ñu ñu kii mais man Siteu ndeysaan bi ñuy ànd xamul du bërewul man boobu tëgguma xam nga tey këram gii fii mu ne nii fii paax woon fii yàgg nañ fi foo guddi ñun ñëpp yàgg nekk nañ booy fii am gel sax ngeen baal ma amoo nekk nga ñëw eh, fii at lee menuisier la woon ni jaay si moo liggéey yaa ngi may dégg. na la pël dégg rek loolu du ma ko dégg. toog waxtaan la toog waxtaan jamono jooju néeg sax pour wane dafa yàgg quoi néeg amuñu ko at lee menuisier la woon. menuisier seen taabal yooyu ñuy teg taabal yooyu ñun ñi ñëpp. yàlla na jàmm yàlla. jërëjëf Djily léegi nañ ñu dugg ci biir combat bi mu mel ni combat bi combat bi dafa xaw a di ci yow parce que Siteu dafa toog ci télé bi daal ne Djily Mbacké bu tëggul du ma bëree si. Mhm. yàlla def mag ñu jóg ñu ñaan di ci nuyu au passage Bira ci compréhension bi mu am xam ni. Euh, sauver journée bi mooy sauver bisu jàmbaar mu am compréhension wu dimbali promoteur bi jàpp ci communication bi jàpp ci ba ñu dindi aban bi ba nga ñëw bëri mais combat bi disoon si yow tey loolu si ta tegoon sa bopp tey jiir bu tegul du ma bëri si nga bëri si tey yow la doon loolu sax dama siy tont sita ta wul kenn respect xam nga dépassé wul kenn nit ñi dañoo juum moment boobu dafa tombante ak per Begay di wax Papa Sow dugal si làmmiñam tamit te moom adversaire Siteu la looloo tax moom la Siteu doon tontu mais nekkul Siteu doful dina jàpp ko Siteu bu ay làmb weesoog yëpp père Birasène ni jaayam la moom papa Siteu ñoo doon ànd ci Kaolack mais bëgguñu sax fësal loolu ndax làmb dafa garaaw tey loolu boo fi nekkee sax di ko wax buñ la baalee mën naa père Bira dama koy damay di ko gërëm ndax dama daan dégg CNC CNC dafa ne ñooñ dañoo xat dañoo yee ma gis ñu baax ñoo xam ne dañoo jox nit cër te neex na nañu waxal neex nañu waxal quoi dëgëruñ xëy na ñun ñoo moom sport boo xam ne xamuñ ni ñuy waxee ak CNG ba si man loolu dal na ma fii taxaw naa si télé yi naan ajuñu ma ajuñu ma ajuñu ma xam te yàlla xam ne ne erreur moo si am Siteu bi muy wax si plateau bi noonu dafa jàpp ne aju ñu ma man sama jëm bopp mënuñu ma aj daaw ba ren te yëgu ma ko Siteu loolu am na fu mu fotee quoi moo waral Siteu waxee noon mais Siteu doful bañ may aj ñi mu war a ñaan nekk foofu ñu may ñaanal muy ñëw di wax te moom mu bëgg noo loolu mënul ne dèjà bi mu demee ba xam ne dañ ma aj dafa ñaan yaa may dégg loolu rek la waxee woon nit ñi nañuy bàyyi xel ne làmb du ngénte du ceet làmb du diine du jam làmb làmb affaire fola mais ku daanu rus yaa ngi dégg affaire góor yàlla la quoi Siteu muy man mii boo ma gisee esaat mën naa bërti bërti bërti bërti mais yàlla xam na ne du ma si gis a xool ni dii say bi non si mais li ma lay wax nii non dama dindi côté boobu lii maa ko bëgg expliquer parce que ñu bëri comprendre ñu Siteu dafa tontu ay kilifaam Siteu dafa waxee nu mu waxeewul te lamb ji passé na képp si gisee neneen daal ñoo ngi jégalu si ngàttal Siteu ku ko xam-xam ne nit la bu am yërmande booy bu ndaw la bëreegu fi benn kase bu am doole mais ci diggante bi daf na fi lu ne fondation yi cag-cag yi jàmm gën fii Siteu bu ko neexoon këram gi dafiy bàyyi yaayam ak yooyu dem feneen moto pompe yi mais yàlla xam ne ne bu li lépp saalam bi du fi toog si suuf lay nekk ak booy moo tax bu wootee muy mel nii ñoo ngi ñoo ngi bëgg ñu comprendre loolu rek xam ne làmb boo si nekkee lii ngay tax xam nga sa deret tàng yooyu looy def nañ lay bàyyi xel mais nit ñi dañuy ñëw làmb mel ni ku nekk si jàkka nan la yaru ni yaru yar dafa am làmb la. làmb la ku daanu rus nañ koy bàyyi xel noonu bu jeexee rek day jeex. bu jeexee jeexee dem diisaay combat bi ndax gis hmm. ngeen ni démb nag biñ la ñaanalee ba nga ñëw combat bi sa combat woon parce que nag sérieusement. ki bàyyi ñëpp yow la. Hmm. diis na ci yow démb de. waaw mais loolu dañ ciy santaat parce que man fii yàgg gis naa fi mbër yi raw si te yàgg am ak seen tëggkat yi problème te kenn du si wax te ñun bu ñu nekkee booy ndaw mu am tuuti lu am rek ñu bëgg ñu ñëw loolu dañ ciy jàng ñaar mooy li ñuy def dafa neex. man Papa Sow sax daf ma ñaanal ñaanal bi ma ñaanal noonu parce que moom xam na ne ñoom bis bi ñoom la gën a jege ñoo tëgg bis kon ñoom bëgg nañ bis bi neex te jiile bu ñëwul wax dëgg yàlla bis bi du neex voilà kon moom day day def lu mu mën pour ma ñëw pour bis bi neex parce que tey Mansour frère am la comme ñu nekkee suñ frère mais bu ñu waxee dëgg ñoom la gën a jege foofu ok kon day bëgg bisu Mansour réussir kon moom lu mu mën a def pour ma ñëw da koy def te moom bu xamoon wallaahi la azim Papa Sow dinañ toog moo ko ay yoo xam ne du at yëpp moom dina comprendre Siteu mi doon bëreeg moom moo la gën a xam ne bu dul woon moom liñ bokk mbokk mbokk moo tax ma bàyyi Papa Sow doon si moom Papa Sow démb laa ko mosul faral ci làmb li muy def nii nag ma la si waree baat yàlla bu Siteu daanati mbër te man Siteu di daan moo ma gënal ay milliards ndax loolu mooy gis nga tey suñ baat yi dafa demee dañoo teel a yeewu bëggee te buñ daanoon Siteu tey heure bii day fekk mooy loolu quoi yàlla tere loolu sag la sant la te soññe la dinañ moo tax ma ne la tëggaguma parce que dama problème bii nii jàppee ma ko problème de man dama jàpp ne lii lu waroon am na dessin boo xam ne man dama siy gis après dama siy jàng lu garaaw li ma si jàng mooy xam naa ñoo xamante ne jot naa leen téléphone ñii wax nañ si télé ma gis leen te yaakaar woon ne sax ñu may bàyyi xel kon man dinaa gën a assuré li may def bu ma damatee stade ñu bañ ma sax non du ma fayu mais samay biir sabar ba si déggee lépp lu ma mën pour mu neex dinaa ko def si mënul diis frère keroog si open press bi gis naa ndeysaan si ta wax ba wàcce ñi naan da jooy si la du génnee ronkoñ <laughs> frère si boo ko kootee di jooy sax ngir bëgg ko de moom day defe ne da nga koy mbalak moom nit na oyof goo xam ne jàpp ne sax nit da koy war a jooyal si du jooy si da ñun ñooy ànd ak moom sax di dem feen di gis ay action yoo xam ne day dab si yaram mais yow booy yërëmtalu sax da lay reetaan ku fi jooy làmb wóor na yàlla après bu ngeen toogaatee fi yow lay kaañoo naan kii da doon jooy kii da doon jooy kooku góor la jàmbaar la du jooy si open press ndax ay nit c'était première mbapatam yaagul dara deuxième combat Issa Pouye la bala Gaye ñun lépp fii la ñu fekk fii la rek moom Ibra Fall terrain Sicap dañu yóbbu ay caméra mbapat laa la wax dañu yóbbu ay caméra yóbbu ay car ko oto bu ndaw affaire yi neex moo tax ñu ne la cin bu naree neex bu baaxee day xeeñ première làmbam la am lépp Siteu dafa miin na public miin na lépp mais moom xolam bu rafet mooy tax day xool nit ñi di am yërmande loolu yërmande la. voilà boo déggee ñu ne diisaayu bis bi. diisaayu bis mooy dem gis nañ Djily def lu mës def mbaa boog bariwul lu ñu koy gis mu def. lan Siteu daan Djily jooy kon bis bi diisoon na ci yow parce que dafa mel ne bi Siteu daan daa am lu la yéene. ok non pour man sax si ay côté diis sabar yeeg yooyu côté boobu diisoon na si man trop mhm. diis bi si man mooy ndeysaan. Fadel woor na Serigne Saliou damaa xam sam bopp xam maanaam man bu ñëpp meloon ni man police jaratul muy am si dëkk bi kenn du àtte kenn bu boobaa kenn du xeex kenn du xuloo kenn du liggéey nit kenn du wax lu ñaaw. amaana sax booy wax sa bopp sax di wax loolu nit ñi duñ la comprendre mais loolu yàlla xam na ñi ñu xam dëggantaal tamit xam nañ ma jékki-jékki di dugg si YouTube bi di gis ñuy tudd xam na di ma saaga. di dafay affaire da ngay wax sax di naay sax mais nit ñi après yow da ngay dañ lay bañ ci saa te yow bañewuñ la loo def mais benn problème bu ndaw la rek. ñu bëgg si jaaree xam nga di leen wax ne loolu léegi d'accord nag ñoo tooñ nañ ñu ko jégal te dindi loolu seen xel si ñun ñun meluñu noon ñun ay nit ñi am yërmaane lañ nit ñi am benn lañ war koo def suñ bopp boo ak ay nit wala ñu jox leen ko toog barki Serigne Bamba li si di dundee si ay millions ñun moom la ñuy dund suñuy junni. Mm. yee mais bëgguñ nit ñi sax duñu gis di bu ñu neexoon nañu ñëpp parce que ay nit a ngi fi sax suñuy def luñ leen di jéppee te déranger leen. tëj ñun jomb nañ loolu bëgguñ sax di dañu gis dañu mere moo tax à chaque fois mooy bëgg expliquer mais du bëri wax du bëgg problème du dara mais neeñ xam ne làmb la farel démb bu Siteu daan woon barki Serigne Saliou bi ñuy bëri tiituma defuma dara man gisuma sax làmb ji xam na laa doon gis ban dëkk laay dem après bu fii leneen xewee beneen wala ay sumaliyaa xam nga sumaliyaa wala ay soral yoon ay voilà dëkk yooyu ay Éthiopie ay Burundi Burundi foofu xiif metti bi ne te nit ñi kii foofu fan la Éthiopie foofu sax dama naroon barki Serigne Touba bu ñu daanoon si ta tay du ma nekk jaamu gan mais beneen côté tamit teg naa ko fa mooy ko am hérowaay doo yomba ba ma barki sëñ Bamba fareel ñun bu ñuy ñëw si làmb rek yàlla dañu lafal cat ñu xool fi ñu war a jaar ñu jaar mbër du ñu daan ëpp ñu doole ëpp ñu lépp dooñu daan dafa am loolu loolu nag wax la ñi ñu jege dëgg de nañu xam fi ñuy waxee waaw ñun am na foo xam ne sa fu yomb la jege ñu buñ fa jaaree day leer barke Seera mais lu jooy. beneen bi tamit ma xam ne bu ma xam ne man comme dundu naa fi loo xamante ne dafa métti comme non waaw comme dund naa fi loo xam ne daf ma métti te nit ñi ñi ngi may yaakaaree ne dama tooñ Papa Sow te donte moom borom baax la mais tooñu ma ko non ma ne papa man ñi ma tooñ ba pare man may dem CNG ñu ku ne di ma tiim bi ma yedd si loo xam ne man dafu ma dara te samay mbokk nee nañ ma lu ñu la wax accepté ko lu ñu la wax accepté ko faaw ma nangu leen lool mais man am na yoo xam ne sax barki Seera Fall lamb jaralu ma nit di ma tiim di ma lool mais daf ma koy jaral parce que Siteu bëgguma ko bàyyi mu dam parce que moom mënu ma bàyyi di dam ndax première ba ba bu mujj bi saabu gertoo daf may gis xam nga mais Fadel bu Siteu daanoon damay am problème ñëpp si man lañ koy tourné parce que li ma def mosuñ gis tëggkat mosuñ gis tëggkat bu mel nii si lamb dañu fàtt si dañuy toog mbay mbalak naan ma nag mbay yow instant bi mooy loolu sama bay rebeeg yooyu coole dafa mel yaay bëre eh di ma mbalak quoi ba biñ ne ginnaaw suba la combat bi ñoo ngi nekk si kaw moo koy wax parce que loolu mësul am si làmb te tëggkat tëgg na fi lu ne tëggkat tëgg na fi lu ne saa yi dañu jaaxle dañu ko ci biir combat bi sa yaram tàng ba nga naan papa saw ngi nii papa saw eh, maa ngi nii waaw foofu tamit nit ñi dégguñu ma xëy na ñoom ba léegi mooy li ma wax ñoo ngi gis xuloo xuloo ma foofu papa dama ñëw toog CNG père Birane ma Papa Sow sa mag la sa xarit la na nga gërëm bu baax parce que woo na ma sonn si pour nga ñëw léegi nag su ma ñëwee est du yoon ma jël micro bi comme moom fi mu nekk daa mais moom te mi may dégg ma woo ko mu ñëw ma ne ko maa ngi nii ñëw naa pour mu xam ne li mu doon ñaan ma nañ ko ko foofu laa waxee mais après ñëw nañ sax di ma expliquer mais foofu rek laa doon waxee moo tax ma ne ko papa maa ngi nii Fadel lamb bi démb bi diis na mais beneen côté bi eggale wu ma xamante ne diisoon bu si ta yoroon bien démb Papa Sow du ko daan ndax loolu. parce que dama toog ne comme man nii la demee ñëpp nee nañ maa tooñ te man wóor na ma ne tooñu léegi yàlla na ma yàlla àtte ak Papa Sow sam papa tamit affaire bi jaral ko mu jóge ba Touba ñëw ñu toog di waxtaan mu ne ma Papa Sow nag boo ko làmb jee passé bu nekkee yaa def erreur loolu ma def erreur dimanche lay leer daf ma wax loolu wóor na yàlla ma ne Siteu day am ndam xam naa yàlla baax na quoi côté boobu sax jarul ma si xuus ndax mooy loolu. mais dañu gis ci bi ngay woo Papa Sow ñu gis bi nga naan Papa Sow da tey dañuy rendi rendi daan la rendi lan la. non ñun parce yaram a tànk boobu. waaw ah. boobu boobu da tuus cuul bi jàpp la. nga xamante ni nga la ñun moom farel nu ñu noppee nii bu ñu duggee si fowum góor tamit amul dañoo tuuti amul dañoo néew doole ay gaynde la ñuy doon comme ñëpp dañuy am doole comme ñëpp parce que mooy li ma la wax góor la affaire jàmbaar la tay tëggkat yu bonko la ngi fi ñu am doole si ta bàyyi ñooy ñëpp ne ma yow mu ndaw mi yaa ma doy non kon man si bëgg-bëgg ak cër damay doon ponkal si moom dafa may jaral ma affronter camion par Serre Fall parce que moom moo ma dund loolu quoi moom mënoon na nekk si signature bi ay tëgg mooy lan dix minutes ngay tëggal mbër mi dam toogee nee mu des ak ñi muy desal dugg bëre daan moom la mais dafa mel ni sax man la moom tey coow lu am si man rek moom la ndax moom moo ne bu jiilu ñëwul du ma bëre bu jiilu ñëwul du ma dam mënu ma dam te ànduma ak jiilu après nit ñi dañuy xalaat su boobaa lan la mais du sax tëgg loolu lu ci du si ta dañu ñëwandoo fukki at bokk at lee dix ans doon ay xale yu ndaw di job di wàcc ba mbër ñëw tëggkat ñëw première lambu si ta si man la jógee Matar Ndiaye du ma bàyyi ma fenn sëñ Modou Niang noonu mu nekkoon combat Marsu Diop ak bé ak eh, nu mu tudd sax Bébé yaa ngi kon kooku leneen moo ñu liyee bu làmb weesoo bu làmb di ñëw tamit bu ñu demee ba moom kenn mënu ko gis mooy li ma la wax man damay xam si li muy nekk yàlla xam na ne bu ñu àndee sax foofu ay kër maaraam wala dara moom bu defee li muy def bu génnee man lay xoolee ba boobu jiili mu dugg. loolu cër la fii mbër yi répété la ñuy gis seen mbër yi ak stade boo fa jugee waatee boo demee di jëli sa reliquat nga fay nekk mais man si sax fay. li ma siy daj noonu bul defee na dërëm la mais yëg-yëg bu ñuy dund la. man damay yor xaalis si te ma yor lasukul mu soxla ko ma jox ko ko toog moom day yor lasukul ma soxla ko mu jox ma ko toog voilà. boobaa léegi nag dégg nga fépp ba passé loolu rek laa gën a bëgg sama live. instant numéro non aw ma numéro. mais est-ce que pare nga pour dem seeti Papa Sow. billahi pare naa Papa Sow dafa ma yàgg a bëggal Siteu dafa bëre ak Zos 3 quatrième combat Papa di bëre ak Tonnerre moo bëre avant grand combat moom sax dafa juum si tamit mi ngi naan sama premier combat Papa Sow moo bëre grand combat mais non loolu quatrième combat billaahi bi Siteu daane te boobu Siteu a ngi jógee si défaite ñuy doog a gis défaite am te que a ngi nii ñu ñu war Siteu bi mu duggee si arène Boy Seye lañ gisee sax ñun ñëw nañ naan daanoo daanoo Siteu moo ne daanu naa ki daan Siteu ñu gis ko mbapat ba arène Boy Seye la yaa ngi dégg bi ñëwee di bëree ak kii bi Siteu daanee Zostra bi ñu ñibbi dama jebal sabar yi toog xaar Papa Sow ba Papa Sow daan ñi ngi ko teg si benn oto bu ndaw mu ngemb kese solul yére solul tubay ngembam na toogee si kaw oto bi gars jaar biir Grand Dakar génnee Demba Diop jël ko ñu perpéga bi maa ngi topp si ginnaaw oto bi fàtte si ta barki Serigne Saliou yàgg koo bëgg ay yoon si ta billaay si ta wax na ko ko ay yoon nit ñi nañ bàyyi xelool lool Papa Sow ñu mu àndaloon amul nit ku ma si gën a bëgg Papa Sow mais mënuma bàyyi Siteu di dem di ànd ak Papa Sow mais démb laa ko faralul si live fam di ko ñaanal nee na nag day bàyyi maa ngi ko wax léegi si grand Ibi Papa Sow barki Serigne Bamba ñun say rax ay sa say ay xarit ñu la bëgg ñoo ngi lay wax ne yow non gisuñu loolu parce que cër bi nga am si làmb gis nañ ko dëgg la aas yi bokkul ak Siteu mais liggéey nga démb liggéey boo xam ne bi nga simee ñi gën a ñi nga xam ne tey bëgg nañ Siteu ñu si bëri dañoo tiit la kon lool yow sax njàmbaar la xam nga sa hygiène de vie baax na ñëwaatal lamb am nga si cër fii am na ay roi des arènes xam ne dam nañoo damoon nañ ba fàtte lamb yàlla indiwaat leen bu mës a bàyyi yow jàmbaar nga barke sëñ Fallou yàlla la yàlla indiwaat xam nga nga ñëw yàlla may la loo xam ne papa barki Alaaji Fallou maa ngi lay ñaanal yàlla defal la li nga gën a bëgg ci lamb xol laay waxee loolu nag li may wax nii waxu ko ngir lu neex nit man jàmm ga laa dëkk am nañ ay supporters am nañ mbër bu mat mbër kon man aw ma leneen lu may wër si mbër mais yàlla xam na ne dama la bëgg dëggantaan jaay moo tax problème bi nii sax doon ma métti maanaam non Papa Sow bu xam naa dina mës a tëdd sax gént man nu ma mel si moom quoi billaahi wallaahi mais bul mës a bàyyi ñëwaatal am nga cër si affaire yi ok bul mës a bàyyi ñëwaatal message la bu jëm ci Papa et puis nañu bañ a nañu pëj bañ a xóotal ndax pap gars yi daal ngeen jàpp si quoi ngeen ñëpp jàppale si lii génn pël waaw baal ma baral ko maa ngi gërëm suma xarit Seynou Ka trois morceaux boobu ma sol dem moo ma ko jox ak xaalis përi na ma damal xam nga di gërëm sama xarit Fallou Koundoul démb xam nga dafa yëkkati otoom bu bu baax ne ma yow carrément làmbeer oto bi maan démb sax lamb ji yëpp xam jox ma ko ne ma doxal si ay soxla lu ma bëgg daf si yëkkati xaalis bëri moom it jox ma Bàcc Diop ma Massamba joob xaalis bëri na nees borom États-Unis yónnee na ma xaalis bëri moom moo jàpp si si loxo yóbbu ko Lamsaar ñu ngi lay sant di la gërëm. di gërëm sama xarit Libaas barke Serigne Bamba doom nday siita moom nekk na nit boo xam ne doxul sax si làmb xamul sax làmb mais Sita moo démb ay tig la daf sonn si di jël alalam di ko daf si man di ko daf si ñun. Libaas maa ngi lay. bu baax mi la kenn du moom Libaas. ñu ngi koy sant di gërëm sama gaañ Badagay xam nga Assane bu nees di gërëm ñëpp samay xarit di gërëm sama papa daf na tey Dakar 12 jours te caaxaan génnewu ko Touba newul sax sa affaire lamb yi mais man maa tax 12 jours la fi def si tey sama xarit Koli Faye ndeysaan borom borom borom waaw. non garaaw waaw dama ci ñëw tuuti rek Koli li ma koy seddal mooy Coly Faye nit ku baax ku ñàkki ñaan la Coly Faye dama ko fekk jonwaar Coly Faye dafa mën a sonn ci bisu jàmbur te Coly Faye li mu yéene boppam la yéene mbër bu nekk fii parce que waxuma ko rek parce que dafa taxaw damay seetlu man du ma gërëm nit taxaw ma mais Coly bis bu ko yàlla fay xolam ci làmb wallahi azim lu mbër di lekk dina lekk lu ko raw nit ku déggu la lu mu la koy wax dala la koy wax pare dafa gëm li muy def aussi li nga wax noonu dama siy dolli dara Coly mooy mbër bi nga xam ne day nekk si état ba sax état am di ko réer xam tax jàmm ga li bëri bëri mbër ku fi am combat koli dina la jàppale ba nga pare. mu dem nekk si lu muy nekk. lu mu bëgg si làmb moo xam yàlla na ko yàlla defal maanaam jege gu mu ñu jege. moom ñëwul rek jege ñu nii. loolu démb la ba pare da see dégg lu nekk. mais bàyyul moom bu fekkoon bëgguñu te yàlla tax ñun bëgguñu ko te yàlla tax dakk na. mais jaral na ko lépp ñun jaral nañu lépp. Coly yàlla na jàmmam yàlla. sa booy tëkkat yi sa booy tëkkat sant naa ñëpp. dem may dem esar ku si nekk sa yaay no làmba met sam booy ku si nekk sa yaay da bu yab la ne la moytul mais làmb coow moo bëri nii rek ne la waaw non ñun fat-fat daf ñu fi ay xeexkat man dafa mel ni damaa yàgg xeex esaat te 2010 ba léegi keroog laay doog am problème mais dama egg leen gërëm bi forso pël xaaral ma ñëw pël lii wóor na yàlla bu ngeen ko génneew dinaa mer trop forso suma xarit douanier boobu forso mm-hmm. borom borom suwaal xaalis bi bëri na trop forso xam nga góor doom yaay nees xaaj bari na man làmb ji moom yàlla na coow man est-ce que du ma est-ce que du ma xeexaat loo ci dolli mel ni si est-ce que du ma sax man ah lii neex na de non dama daan ñëw làmb affaire yi mais làmb ji lépp daan nooy barke sëñ Bamba di gërëm góor a Diop mbokkum bala sek Seck sama xarit la góor moom kenn du moom góor a du moom góor a wi fii la barke sëñ Bamba day dama xët-xët ba boo comprendre sax yow da nga koy mere fekk non moom noonu la mel moom moo mel noonu du bàyyi góor a doom yaay baala góor a sama grand maa ngi lay ñaanal baax di gërëm ñi taxaw ni ñëpp ma limee juum bëggee sant xam di wax ne Siteu daan Papa saw dëgg la de champion bu mag la Papa mais daan Papa Sow daa am fu mu la war a yóbbu ndax dafa am ñu ko daan ñoo xam ne daanu ñu ko rek toog dafa am fu mu leen yóbbu baala Gaye 2 daa daan Papa Sow dem nekk roi des arènes Modou Lo daa daan Papa saw donte ñoom ñaar ànd nañ seen lamb sax kenn waratu koo tëdd mais dafa dem nekk roi des arènes Lac de Guiers daa daan Papa Sow. gis nga nekk ca kaw Ama Baldé bi mu daanee Papa Sow la dem di bëre ji combat royal kon yow jàppal ne Papa Sow mii nga daan non daan nga ko de mais damal nga suba na nga dem entraîné ji ndax moo la mag téeméeri junni yoon du dara ñun ndam li barke sëñ Bamba kontaan nañ ci ndax buñ ko ñàkkoon suñu àdduna dinañ ci ñàkk lu bëri nañ ci dégg ñu métti hmm. kon kontaan nañ ci xeebu ñu ko léy ni si ñun mais na nga dem xam ne ñi nga war a daan papa moo si gën a ndaw ndax démb taxaw na ak yow ne la bàyyi naa bëre te am nay supporter mbër la ba léegi nekk na kon bu bàyyee bëri mooy ça veut moo ngi jëm mag te bëggul gàcce xam nga mais kon yow na nga xam ne ki nga daan nga koo xam ne moom mi ngi fin de carrière dafa am ñu fi nekk ñun ñooñ lañ soxla nga daanal ñu te ñooñu mën nga leen daan ñi la xamul ñoola xamul mais ñun xam nañ la bu baax Siteu jugal nga dem uti doole ju bëri nga ñëw li lay topp wallahi la azim bànneex ak naqar suñu borom moo ko yor mais ñun waruñu am naqar Fadel fii mbër yëpp am ay supporters mais Siteu ni ñu koy supporter xët-xët bi gars yi am si moom loolu amul yow boo xamul sax da nga naan ñi dañoo ëppal wala ñuy yaruwuñ mm-hmm. mais loolu yàlla na jàmm kii dafa yàqat qualifié de kaay qualifié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 Guerrero.